bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen waa info réew mi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di ziyaara mboolem ñi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel ak fu ñu mën di nekk ci àdduna bi waaye rek di leen sant bu baax di leen gërëm ci buntu yiw yi buntu yiw yi mooy lan mooy jumtukaay yi nga xam ne bu ko yàlla dogalee. buñ ko jàllalee ci jumtukaay tas xabaar yi nga xam ne ci la bokk mbooloo danañ ko mën a seetaan kon boo yéenee nit ki aw yiw mooy waral lu mel nii sant nañ bu baax ndax dëkk bi xat na ngeen déplacé wu ba ñëw fekk suñu ci kër gi wane ak yitte mbir mi moo ko waral waaye nag ñoo ngi leen di jéggu lu baax ndax Euh, ñu nit lii buntu jaamu yàlla la wax ñu lay déglu du ndam du pouvoir du daraja waaye ci buntu ke buntu jaamu yàlla yi la bokk maanaam jaamu yàlla yi bu faratay jàllee daa am ay ay la nawaafi yi nag da cee bokk yi ngay dolli saw yiw sa kanam borom subhaanahu wa taala da cee bokk yu mel nii yàlla nañu yàlla defal yéene ju sell ba li ñuy def jëmm yàlla tax ci yàlla ñu ko nangul moom mi nga xam ne lu mu nangu dana ko ful bu loolu jàllee ngeen euh, sàkku ñu def as tënk ci lenn ci alxaaji Mouhamadul Amin Baara ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil ibnu Cheikh al Xadim radiallahu anhum ajmain mi nga xam ni moo njëkk a toog jataayu sëtub sëriñ Touba bu toog jataayu sëriñ Touba radiallahu anhu moom la ko yàlla def waxtaan ci moom yomb na waaye yombul yomb na mooy luñ nekk-nekk ay gone jamonante nañ ak moom ci lenn ci dara ci jamonoom fekke ci dara yàlla defal ñu taw tawfiqit ñu siq ak moom ay jataay jataay yi mbooloo ak jataay yu dul mbooloo jataay yi wéet yàlla dogaloon ñu amoon ci moom ab cër boo xam ne cërub judduwaale la ndax way jur ya ak maam ya ñoo ko seqoon ak Cheikh Mamadou Fadil way jur ya ñëw seq ko sëriñ Fadil fii seq ko ak moom maam ya it noonu kon loolu mooy tax boobaa dana yomb waxtaane ndax dang ci xam dara naqare waxtaane yi mooy fooy tàmbalee gënut xam ndax yàlla daf ko defaloon yi mu nekkoon koo xam ne ku yaatu ay mbir la woon ku rafet ay jikko la woon ku xamoon jamono la woon ku yewwu la woon ku amaloon njariñ ñim doon dundal la woon ku liggéey ci yoonu murit liggéey yu ràññ ko la woon koo xam ne ak xilaafaam marke na jamono ci nut effacé wu mukk ba ci wet yëpp kooku kon waxtaane ci dana jafe noo koy tënkee ak fooy tàmbalee li ñuy màndargaal ci ne ku amoon njariñ ak ñim doon dundal la woon bokk na ca li koy màndargaay moom alxaaji Mouhamadou Lamine Baara bépp aajo yi nit ju mas a dégg taxaw na ca lu man ngir aajo ji saafara bépp aajo yi nit ju mas a dégg taxaw na lu man ngir nan la def ba aajo jooje saafara daw dënir lu aajo yi kenn boo waxuma ne daw ko danitlu waaye da ko daan jaral di sonn di sonn def effort pour sa aaja faju menn misaal laa ci joxe mooy euh, alxaaji baara mujjoon na euh, Sonatel mu am fa bureau am fa bureau moo leen mooy barab boo xam ne saa bu ñëwee fa lay féete lan la daan wuti Sonatel lan la fa daan wuti lan la daan wuti Sonatel li mu wuti mooy ay nit ñu am ay yitte téléphone yombul woon ci dëkk bi téléphone fixe yi boo defee sa demande ba jot sa dossier dangay sa xel day daal di nekk ci alxaaji baara nga dem jël dossier yee jox ko xam na la xamu la mbokkam nga doo mbokkam xoolu ci yooyu li mu xamoon mooy aajo aajo yi doomu aadama aajo ab jullit jum jàpp ne mën na caa faj dara mu taxaw ci faj ko daan dagale dus yooyu ba ñu bari lool ci loxoom mu xëy sanaatal wootewut yónneewut xel boppam ngir lan ngir taxawu ñooñee ci jumtukaay boobu ñuy wax téléphone ca muy lu am njariñ ca muy jamono yooyu ay benn benn nga daan waññi ci dëkk bi ñu ko am jamono yi muy taxaw dëgg bari na ci ñoo xam ne bëkk démb doom benn doom sëriñ Saalix Mbàkke nee na ma li ci yéeme mooy bari na ci ñoo xam ne ci turam la leen daan aboneel bari na kër yoo xam ne téléphone yoo fa doon dox alxaaji baaram ci turam la leen aboneel ngir bëgg ñu daal am téléphone kon kooku amaloon a njariñ ñu nekkaloon ñaareel bi mooy maanaam accessible maanaam àgg ci moom dafa yomboon saa boo woon donte nag dangay xam ne donte nag jën doomu sëriñ Fallou jafewut loolu moom jënn doomu sëriñ Fallou joo xam ne danga nga naan na tëjun mbooloo mais yooyu moom yàlla dogal na ko ci njabootu sëriñ Fallou Alaaji Baara nag bokkoon ci ci gënoon ràññeeku ndax lan mooy ca ëtt ba la toog ca ëtt ba li ëpp ci ak toogam yoor yoor wala takkusaan boo ñëwee da nga ko ci ëtt ba saa boo ko soxlaa boo demee da ko ko di gis kon loolu bokk na ci li mu gënoon ràññi ko bokk na li mu gënoon ràññi ko mooy su yàlla dogalee ngay nitu àdduna nit ku fonk dara daraja nit ku mën a doon ci yooyu ba ñëw ci kanam alxaaji baara da nga da nga da soppi aw doxin wala da nga yëg ni kat ci de moom fi nga nekk nekku fa ci woyefal gu mu woyefaloon àdduna woyefal àdduna lool daan feeñ ci léppam ay lalam daw ci tëdd tegale ci ay téere tegale ci photo yi ay téere toog ci suuf wéeru ci ci ci photo yi léeg-léeg ci ci anam googu condition yooyu lay lay nekkee ba bët set ay di wax ne léeg-léeg boo demee ba mu recevoir la ci néegu biiram ñu bari néegu biiru alxaaji baara bi bi nga xam ne mooy néegam da nga fekk ci ay bagages ak melokaan wu wu doyadal àdduna wu suuf sobental àdduna wu suufeel àdduna wu ñàkk a faale àdduna woo xam ne danga yow bëggoo faa waxuma bëggoo faa dëkk waaye bëggoo faa yàgg ngeen yàgg gi rek xëy na bagage na la déranger dëddu àdduna ga melokaan woowu loolu nag ci lim gën a ràññi ko la bokkoon bokk na ci lim gën a ràññi ko it mooy fonkoon julli rawatina julli aljuma alxaaji baara koo xam li lay xamal ni tey néewu fi mooy ñàkk dégg amiin ja waaye sàppe su njëkk sa ci lay nekk amiin ja fu waay toll ko dégg nga xam ne ba ci ba ci àllarba ji ñu mujj a màggal ji ko fi mujj fekk ci màggal Tuubaa àllarba la màggal ga alxames ajjuma di ñu war a julli yi nga xam ne coono yi ak métti yi tax na ñu ko doon ñu ko doon rek ngir mu dem mu ne donte damay ram sax damay dem condition yu metti kéro la daj coono yu metti la daj ba muy julli ji waye khalatul khalatul baña julli ji kon bokko na ci lim gënoon ràññi ko muy fonk jaamu yalla rawat na banen jaamu yalla gum fonkon lol muy xaj makka aj makka yombul aj makka ñu bari buñ nan diw dem na nangam yon diw do nangam yon yombul de dangay yaakaar ne xëy na day promenade wala day doxantu ci wala day day def touriste eh déet di dal de tourisme yóbbu ko fa ak naka moom du caaxaan lan moo tax du caaxaan mbokk yi mooy dafa boo jugee fii dem Madinatu Munawwara nekk fa diir ba nga fay nekk man nga ne daanaka yaa ngi ci ak noos ak naka maanaam lu neex la ziyaar Yonent bi conditions yi ngay nekk dara du soppeeku waaye boo jugee foofa nag jëm màkka ba xarmala xarmale biiru ali jëm màkka melokaan wa ngay nekkee condition yi ngay nekkee képp ku fay baagante yàlla ñor la boo demee màkka yit bañ nekk fa ba dem nag muna nekk fa fan yañ fa war a nekk ak arafa ak condition yi nekk musdalifa foofa kep ku fay bagante yalla ñor na la du caaxaan conditions yi metti na diir na trop jegi na dayo lol ak ndax du len mënoo fa distinguer mënoo fa xamé kenn mënoo fa xamé borom judd bu reuy ak judd bu suufe mënoo fa xamé borom alal ak ko amul alal mënoo fa xamé borom xam-xam ak ko amul xam-xam lulul dul ne ñu aaje woko waye ci melokan ci col ci condition ci dundin lolou mom da ngay gis ne métti na métti woo xam ne jéggi na dayoo ci alxaaji baara daana wax ne aj na màkk ñeent fukki yoon ak lu topp 43 fois waaye barab bi ko gënoon a neex ci aj màkk mooy Muna ak Arafa ca Muna ak Arafa barab la yoo xam ne moom laa ne condition yu métti yi bari na ñoo xam ne xam xam la nekk Muna ak la nekk Arafa moo leen di aji am nañ ko man nañ ko waaye jàpp nañ daal foofa daal dem fa moom bokkul seen programme ngir ngir métti do am na ñoo xam ne dem nañ fa benn yoon xalaatuñ faa demaat ca dara war la ko may conditions yu métti kon alxaaji baara bu toggoo dem fa ba muy ñeen fukki yoon ak ñett mbokk yi loolu day wane ne jaamu yàlla gi ñor na ko ndax jaamu yàlla ndax aj màkk kat daa bokk jaamu yàlla yi gën a rëy yi gën a màgg yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yàlla nangu sax aj amul lenn lu ñu lay fayee lu dul aljanna kon alxaaji baara yàlla nañ waaye jëmm la woon joo xam ne moom it ku woyof la woon ku jaxasoo woon ak doomu aadama yi la ku leen amaloon njariñ la ku wàcc woon boppam la bi mu nekkee Serigne Touba it philosophie bi mu doon jëfandikoo di bu am solo mooy ña ko moomoon dem nañ ñi ko bokk fi des nañuy diisoo nañuy waxtaan ku nekk mu gëm loo ne la mbir mi sa mbir la yaa ko moom taalibe it mu gëmoon leen. daana wax ne fii loo fi gis rek mu taxaw fi rek taalibé ko def kon nañ fonk taalibé yi nañ jàpp taalibé yi kon sëñ El Hadj Baara bu ñu doon waxtaan ci moom fii ba suba mën naa yàgg lool waaye du tax mu doy wala duñ doyal waaye yàlla nañ ko yàlla fayal ñu ko bëggoon sëriñ Fallilou radiyallahu anhu mu ne su jeexal mu ko ci waxee su loolu bëgg sëriñ Fallilou ko jéggi woon na dayoo cër ba mu ko joxoon jéggi woon na dayoo du ak njureel waaye ak cëriñ sëriñ gi mu doon ci moom moom la jàppoon ci moom pastas wala jàppoon ci moom moo tax yëmaliwu koonu kenn képp koo xam ne am nga wàcc-wàcc sëriñ Falilu alxaaji Baara fonk la teg la ca kaw ngir wàcc-waay ba nga am sëriñ Falilu yàlla na ko yàlla fayal di ñaan mm, suñ borom yàggal fi ak njabootam sëriñ Modou Moustapha mm, sëriñ Moustapha mi nga xam ne moom moo nekk ci bopp bi ak mboolem njaboot gi yëpp eh, yàlla yàggal ci kanamu eh, seeni taalibe ñoo ngi jégg lu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.